bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi yàlla dolli noo ay maqaam yàlla bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi dolli noo ay maqaam yàlla salaamaaleykum à tout le monde maa leen bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay comme chaque jour comme toujours maa leen bu baax a baax di ñaan ñaanal jàmm te ñaan jàmm jooju sax ci mim xew parce que jaamu ci la lépp xaj di ñaan jaamu jooju wala ngaan ba dugg ci biir néegu sëy parce que on jaamu lañ am jaamu jaamu la la ñuy ñaan kon ñu ngi koy ñaan ci mim réew tey nag ma toog ak koo xamante ni nii man je l'estime je l'adore parce que bi ñu xamante c'est la première fois qu'on se mais dafa daf ma dafa daf ma woon daf ma woon lu spécial loo xamante ni nii c'est la première fois ma koy gis ci nit muy nit ku dëggu te moment bi ñu toll loolu lañ manqué dañu manqué ay nit ñoo xamante ni nii dañu ils sont spécial te genre ñii dañ leen soxla ci mim réew kon dama koy ñaan a jàmm di ñaan sama sama relation ak moom bi nga xam ne maa ngi koy doog am muy continuer mu law parce que ku nekk loolu lay ñaan kon maa ngi koy jeex bu baax a baax muy tonton Maysa je le nomme le marabout du peuple la marabout le marabout des marabouts képp koo xamante ni nag bëgg lu baax fii ngay ñëw man di Big maa ngi fi ku seet rek boo demee suñ kër nekkuma fa xawal ne maa ngi maa ngi Maysa yéen ñi ma doon tëkku nag am ngeen problème parce que man gis naa man ki ma doon wër grand Maysa nuyu naa la dama lay bàyyi nga nuyu ak ñi nga xamante ni ñi ñooy les chers internautes de Salam Vision comme ça ñu wéyal waxtaan wi. salaamaaleykum je salue tout le monde entier et je dis bonsoir à tout le monde je suis petit frère de Sokhna Kya Aïdara Mboup et paix à et je salue tout l'Africain et salue tous les Maliens aussi. Moi, je m'appelle Maïssa Mboub et ma, père, ma mère s'appelle Anna Kamisoko, mon père s'appelle Sirim Mboub. Bon, Alhamdulillah, je suis au Sénégal pour le moment, cité Alimissou, Guédiouaï. Donc, je suis là pour aider les gens qui, qui besoin et les gens qui sont les problèmes. Donc, je suis là pour ça. Mais ce que je veux dire dans la vie, c'est pas tout que tu peux faire. Ce que tu peux faire seulement, c'est ça que tu peux faire. Tu si peux tu ne peux pas faire quelque chose, tu vas dire tu ne peux pas faire quelque chose. Donc je suis là pour faire ce que je peux faire dans ma vie. Donc je vais saluer tout le monde et je salue tous mes clients. Donc alhamdulillah. alhamdulillah comme il l'a dit te ku nekk loolu la loolu saa yu xëyee war naa wax alhamdulillah parce que Allah is all. dama koy ziar damay dugg ci waxtaan wi parce que comme je le moom dafa nekk koo xam ne dafa dëggu du question que dama toog ak moom moo tax may wax loolu nee naa la nit ki ci lim lay wan si nga koy jàppee man je l'adore yéen ñi nga xamante ni nag yéen a may toog am ngeen problème de man daje naag ak ki ma doon wër ku nekk ak sa nag ku nekk na lang nga ko waayam nee na ku lamb yaa tey daagul fañ la nobee man fii lañ ma nobee kon fii laay lang maa ngi koy ziar bu baax a baax di ko jox wàccu waayam di ko ñaanal jàmm comme je le dis grand ginnaaw ginnaaw bi ma la nuyoo ginnaaw bi ma la nuyoo ginnaaw bi nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan tey dama dugg ci sa kër am lu ma yëg la moo tax fii ku fi dugg fi am am loo xamante ni maanaam da ngay sentir ne c'est comme si que yaa ngi yaa ngi yaa ngi doog dugg ci yaa ngi doog a ci kër loolu lan la. bon danga xam àdduna nit ku ne ak sa wërsëg nit ku ne ak sa xam-xam loo xam rek loola nga def soo xamul dara doo mënu def lool bon man lu ma mënu wax rek. daa xam ñun suñu kër foofu laa dafa may xam-xam donc sunu maam sunu yaay ak euh, sunu côté sunu pap donc da xam yàlla su dafa jox nit benn wërsëg sauf su yow si boppam da nga yàq sa wërsëg soo yàqu sa wërsëg kenn ku nekk sa wërsëg la si en ngi comprendre du man damay yeewu rek nekk sëriñ non du noonu si en ngi comprendre sama maam sëriñ la sama mag bu jigéen Kya dara Mboup kooku tam sëriñ la donc comme moom dafa gaañu donc sama yaay ne ne ma ñëw fii ma jël relève pour moom ma def liggéey comme moom ni mu def danga xam nit ak lu mu deme deme doo mënu def lépp comme li ma la wax rek waaw lu ma mënu def loolu laa def lool mënu ma def duma ko def loolu laa dema la ba ma ne affaire interview affaire affaire internet man du sama affaire parce que lu tax man sama xam-xam loolu la xam mun na def sama liggéey su ma def pour beneen nit su boobu dafa baax kooku dina wax keneen parce que internet dafa amul nit ku ne ku ko xamul ku xamul am na nit ku ne mais comme su nit ne ne dama bëgg nga def émission doo munu bañ et puis Zango yéen dafa seex ak sama mag donc ba moom dafa gaañu donc yàlla def tam yéen fàtte ko tout le temps yéen mi ngi ñëw pour laaj ma lu ma war a def ak lu ma xam donc lu ma xam loolu laa dina wax yéen lu xam ma xam ma ko du ma mënu ko wax waaw. comme il l'a dit damay def seede boo xam ne bu am solo la. il nous a pas appelé pour convaincre ñun ñoo ko bett tey pour vous dire que ni woowuñu fi pour ñu ñëw wane ko non non ñun ko bett tey parce que ñun ak moom la woon demb kon tey yoon la tey jii nii ñu koy ñu koy jël parce que ku nekk ak ki nga am nee naa leen ku lamb yaa tey daagul fañ la nobee comprendre ngeen woowuñu fi nag ñun ñoo ko bett ak suñuy matériel au début sax il ne voulait pas mais comme que ñun ay gaynam lañ. xam nga bañ bañ bëgg yaa ma gën a xam léegi nag dama am benn benn benn laaj parce que en ce moment on voit que tout le monde veut devenir des marabouts tout le monde ils dans l'internet pour pour dire que je suis un marabout tel je suis là avec avec avec avec avec en ce moment boo doon joxe conseil tu vas tu vas leur quoi parce que bëri na bëri na ay faux marabout Sénégal ñun xam nañ li fi nekk. ñoo xamante ni dañuy ñu xëy di woote tak rajo yi tak internet yi woote woo gars yi presse mu leer na yow li ñii lu ñuy def nii ay ay ay ay coup montage la bon mun ma wax ay montage la mun ma wax encore ku montage la ndax xam yow soo liggéey pour beneen nit par exemple dafa am ay nit dafa ñëw ne ne nga certainement pour que lan moo sama biir bon normalement su sëriñ dafa la wax lu nekk sa biir dafa may yeneen sëriñ mun na set mais munu def sarak dafa may yeneen sëriñ mun na la génne sarak mais munu la munu def seet mhm. dafa may yeneen sëriñ mun na seet mun na génne sarak mun na def lu ne mais ci boppam su sëriñ dafa laaj yow sa problème moo lan mhm. loolu man duma jël ko comme sëriñ parce que sëriñ waroo laaj parce que sëriñ su yow da ñëw ba pare mhm. sëriñ ci boppam mun na xam lan ak lan moo nekk sa problème su dafa la expliquer sa problème léegi su fekkee na mun laa la dimbali dinaa la dimbali su fekkee ne mun laa la dimbali tam bon dinaa la expliquer munuma la dimbali essayer comprendre bon man munuma juger ay sëriñ dëgg-dëgg du ma wax benn sëriñ dafa fen du ma wax sëriñ xamul dara parce que loo xam loolu la nga wax parce que su fekkee ne moom xamul du dem ci internet su fekkee ne moom xam na du dem internet ci internet ay client ci boppam mun na wax xam na ou bien xamul est-ce que yaa comprendre donc ñoom mun naa juger ci lool parce que bu lu juger nit alors que xamoo ko. ok waaw man man naa wax moom xam na man man man je peux le dire fois mooy kon boog man comme je le man damay faral di wax du ma wax loo xamante ni nii nekkul ci man. parce que dafa am lu ma bëgg doon ci mim réew dama fi bëgg a nekk l'animateur du peuple l'homme qu'on a choisi pour qu'il choisit kon lépp loo xam ne wax naa ko fi rek après mën na nekk mën na nekk vaar man man man sañ naa waate moom xam na parce que dafa dafa am lu ma jot a wax quoi loo xamante ni réalité la lu am la te li ci kanam raw li bët ku nekk xam na ni ku koy jéem ak ci mën bokkul ñu ñu ñu ñu toll foo xamante ni nag maanaam réew mi yëngu na comme le problème de Mali CEDEAO Sénégal maanaam ñu nekk ay affaires yoo xamante ni c'est l'actualité on le voit mu nekk loo xamante ni question de kër la parce que ay xale ñoo nekk Mali ay jeunes fii tamit ay jeunes tu kon war na rafet diggante bi war na nice lan nga lan nga lan lan nga leen di conseil ñi nga xamante ni ñoo nekk ñoo nekk ñoo nekk au pouvoir ban doxalin lañ war a am pour que jàmm mën a ñëwaat ci suñu diggante ñun ak moom parce que jàmm ci la lépp xaj. mon frère je j'ai déjà parlé ça année passée je peux dire cette année passée l'année n'a pas encore terminé année passée j'ai dit que tout Africain tous les pays qui veulent menacer Mali tu vas tomber dans les pétrés Même si tu regardes mon émission, tu vas trouver dedans. J'ai dit, nous les Maliens et nous les africain parce que je suis Malien, je suis Sénégalais. Ma mère est Malien, mon père est Sénégalais. Donc j'ai bien et belle dit, je suis Africain. J'ai bien et belle di j'ai dit à Macky Sall, il n'a qu'à faire attention. Tout le coup qu'ils vont préparer pour lui, pour Mali, il ne faut pas qu'il va rentrer dans le jeu. Parce que pourquoi les bénédictions que les Maliens ont faites, ils n'ont jamais fait à un président. cette année, les bénédictions qui sont faites, il n'a jamais fait à un président. Et puis en gros, les populations n'ont jamais aimé quelqu'un comme les gens qui sont là-bas aujourd'hui. Toutes les populations ils sont en train de soutenir les gens qui sont là aujourd'hui. C'est ça que j'ai dit à tout Africain, à tout le monde entier. J'ai dit tous les gens qui rentrent dans les jeux entre Mali et notre pays, tu vas rentrer dans les pétrés. j'ai dit ça, il faut regarder, tout les pays a le problème. Tout le pays qui est en train de faire coup monter au Mali, tout le monde a un problème. Donc ce que moi je toujours, Macky sal n'a qu'à regarder. Il n'a qu'à savoir gérer comment il doit gérer. Je vais dire quelque chose aussi. Mon frère, cette année-là, <laughs> ça va chauffer au Sénégal. De. Hmm. il faut bien, il faut bien écrire, tu petit frère de qui à Drambo. Ça va chauffer au Sénégal. Mais ce que je vais dire seulement, si n'importe qui trouve mon vidéo, il n'a qu'à envoyer ça à Songo. Hein? Songo Il n'a qu'à faire attention à son entourage. Tous les moutons blancs n'est pas blanc. Et tout le mouton noir n'est pas noir. Et tout le mouton rouge n'est pas rouge. Ce que je veux n'a qu'à faire attention à son entourage. Son entourage là, ce n'est pas solide. Est-ce que tu as compris ce que je te dis? Le jour l'enfant de Ablawal va rentrer Sénégal, mm. ça va devenir notre histoire. <laughs> Est-ce que tu comprends Le jour que l'enfant d'Ablai va rentrer ici, ça va devenir histoire. J'avais dit ça à quelqu'un. Mm-hmm. Les coups qu'ils sont en train de préparer, si l'enfant d'Ablai va rentrer au Sénégal, avec les messieurs qui vont laisser là, mm-hmm. les deux là, mm-hmm. Sénégal va ménager encore. Donc c'est pour cela que j'ai que Songo n'a qu'à faire attention à son entourage. Est-ce que tu as compris? Je comprends. Sénégal là, ça va être du plus que ça. Je te donner trois, quatre pays. Sénégal, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire. Après, sa va être du plus que tous les pays. Mais Sénégal, on le, on le vit maintenant? On le voit? Sénégal. Sénégal va être plus doux que ça. mais Sonko n'a qu'à faire attention à son entourage. Et il n'a qu'à faire attention à son entourage de ses familles aussi. Il n'a qu'à bien protéger ses familles. Hein Oui. est-il bien Ça, c'est très important. Est-ce que tu comprends Je comprends. Oui. Affaire de politique, je pas dedans. Mmh. Mais il n'a qu'à faire attention. Tout. Tous les gens qui le suivent, n'a qu'à protéger tout le monde. Mon frère, celui qui t'aime, celui qui li mu bëgg wax sangul sa jàmm yaram la bëgg. celui qui t'aime, celui qui c'est là où il doit te Moi, je n'ai pas confiance en Africain. est tu comprends? Je comprends. pas confiance en aucun Africain. Mm-hmm. Donc, Sogo n'a qu'à faire attention. Ce que je connais par rapport à ça, c'est ça. Comme, tu l'as dit, tout à l'heure, tu as dit que tu as dit que l'Afrique l'Afrique euh, comme comme le problème de Mali képp koo xam ne dugg nga ci rek mën nga ci am problème et pourtant on le voit maintenant non, on, on que toute l'Afrique on remarque le problème de de coup d'État ici en Afrique et que on le vit ce que je vais te dire il faut remarquer ils ont fait embarquer au Mali ils ont fait tout au Mali mais aujourd'hui là je peux dire Mali il a la paix plus tous les pays mhm. en France même on peut plus payer essence au Sénégal ici, toutes les choses sont augmentées. Augmenté, oui. Mais Macky Sall doit faire certaines choses, comme ce que les Maliens font. Enfin, oui. au Mali, ils ont descendu tous les prix et en même temps, ils ont mis les gens qui font contrôle. Chaque matin, ils vont aller au marché pour faire contrôle. Si quelqu'un monte, même une centime, si ton marchandise, on ferme ta boutique et puis encore tu payes un amende. C'est ça que Macky Sall doit faire. Il doit regarder, envoyer les gens au marché, descendre toutes les choses un peu, c'est ça qui est bon. Macky Sall n'a qu'à faire quelque chose sur ce que les Maliens Parce que, tu sais, dans la vie, Dieu va demander tout le monde de Oui. Macky Sall n'a qu'à mettre dans sa tête. Dieu va lui demander tous les gens qui sont dans le pays. Dieu va lui demander chacun son jugement. Donc, c'est ça qui très très important. Macky Sall n'a qu'à souvenir à son population. li mu wax c'est important man man je vais dire quelque chose ñun on est des jeunes te ci réew réew mi lañ xam réew mi lañ jaroo ci lañ màggee te dañ ne euh, ay du yam ci jaami borom kon yéen jeunes yi c'est yéen laay waxal képp koo xam ne tu es jeune xamal ne yaakaar nga lépp loo xam ne yaa ngi koy jël comme décision na nekk décision boo xamante ni nii ça va avoir ça va avoir lien avec ton avenir parce que nit amul lu dul avenir am gis nga xeexal xeexal te ki lay nax ki naan xeexal mu ci këram loolu noonu war nañ koo xoolaat parce que ñun ay jeunes lañaa ah, ay jeunes lañ te réew mi bu tàkkee ñun la tàkkal kon yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk yéen yéen la ñuy wooyee homme au pouvoir ngir yàlla andi leen jàmm ci mim réew parce que jàmm ci la lépp xaj ñun on en a besoin suñuy rakk am nañ ko besoin tu vois kon andi leen jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj gis nga àdduna day jeex lépp dafay jeex kon jàmm jooju noonu dañ koy ñaan ngir yàlla di ko saaku ci yéen yi nga xamante nii muy Sonko muy Macky Sall muy parti au pouvoir boo xam ne yaa ngi ci réew mi jàmm la ñu ñaan ci mim réew kon ngir yàlla indil leen ñu jàmm parce que jàmm si la lépp xaj indil leen ñu ko ngir yàlla on en a besoin bu jugee foofu noonu ci problème boobu nga wax problème Sonko bi ñu gis ne esa bi am na beneen actualité yoo xamante ni ñu ngi ci mim ñu dugg bu ñu jógee foofu mën nañ na ci làmb ji ñu gis ne Balla Gaye contre Boy wax ji bëri na parce que def nañ signature bi passé ñu gis ne ñu gis ay affaire buñ jógee foofu dem ci combat booy Niang dem ci combat Reug Reug Sa ñu gis ne foofu tamit coow juddu na ci yow lan nga ñu mën a lan nga ñu mën a jàngal ci combat boobu noonu wala lan nga ñu ma ci lan nga ñu ma ci lan nga ñu ci mën a leeral pour que ñu comprendre parce que instant bi coow yu bëri na de ku nekk mu ngi naan man la man la. man dinaa wax benn affaire rek. population rek la mun wax mais du bugguma dugg ci affaire laamin bi. mais dina wax population. jour lam ku bugg jàmm mhm. nga toog sa kër. nga toog sa naa ko de ku bugg jàmm nga toog sa kër. deuxièmement du sarak de même soo def sans nak ah mhm. dina ma nit ku dee. c'est important de. est-ce que comprendre sëriñ ku ne soo bugg nga def ay sarak. man maa la wax tey combat bi wax ma du jeex de mais ah bakkan bakkan lu bare dina dem ci biir de essayant comprendre mais dina lancer défi pour autorisation essayant comprendre or gars yi dafa organiser affaire bi ñoom dina def tout possible wut ay sécurité lu bare ay sécurité lu bare et puis encore kenn ku ne su dinaa dugg il faut ñu xool seen sac seen poche essayer comprendre grand lamb bi ñaara affaire la lambi dina dinaa reporter ubbi dinaa ay problème essayer comprendre ku la wax ki moom munu ki moom munu man wax ma lool de man population rek la wax ma ne population ku ne soo mun nga seetaan ko ci télé su yoo buggul seetaan ko ci télé nga dem ci sa jaam nga dellu soit ci sa jaam mais man xam na ke ah dina am ay surprise loolu ke xam na lool. li mu wax c'est important dama leen koy faram-fàcceel ci wolof maanaam nee na combat bi waxul kii mooy daan waxul kii mooy daanu mais il a précisé que ni yéen ñi nga xamante ni yéen a yéen ay dem esat ngeen dem ci ci jàmm parce que combat bi dina bëri ay surprise kon nañ woote jaamu parce que diggante géejawaay Pikine pour man jaamu rek ci war am te jaamu jooju leenaa la moom la ñuy ñaan ñun ay jeunes lañ waruñoo ñun on est des avenirs te ay jeunes rek ñooy dem estade ay jeunes rek ñooy dem estade jeunes yi kese ñooy dem du paa yi du maire kon nañ fa woote jaamu parce que après bu sport la bu jeexee dañuy àndaat kon ngir yàlla yéen ñi nga xamante ni nii yéen a mënul toog seen kër boo ñu demee estade ah am dina fa am ay surprise de mais surprise boobu noonu nag ku ci bëgg bokk wala ku ci bañ a bokk na nga toog sa kër ngay seetaan ko fa parce que c'est ça qu'il a dit te c'est important parce que nit ki am société buy dem jeune jeunes yee tax fii réew mu fi bu fi avancé rek c'est parce que jeunes yi ñoo dëggu jeunes yi ñoo farlu jeunes yi ñoo yeewu te instant Sénégal boobu lañ soxla Sénégal boo xamante nii képp koo xam ne jeune nga nga devenir mature parce que foofu lañ toll parce que dëkk bu doxee rek jeunes yaa tax kon loolu noonu c'est important ñu bàyyi si xel waxul kii mooy daan waxul kii mooy daanu lii laa leen doon wax naa leen ki koy jéem ak ki ko mën bokkul te man dama da fierté la ma toog ak moom bi dugg see nag ma gis fi ay ay ay savon ma dugg ma gis fi ay marchandises yoo xamante ni nii bëggoon naa nga décorti nga nga décorti ko ko comme ça ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñu man see jariñu ak ku ku si bëgg ku si bëgg jariñu nan lay def. bon saabu bi saabu bi dama ko defar ak euh, sama yaay ak sama maam yi est waaw parce que da gis saabu bi dafa may lu bare moo nekk ci biir mm-hmm. kii sama mag moo nekk nii mm-hmm. est-ce que yaa bi. par exemple soo defa ma ay lamine ak nit chaque jour sa bopp mi ngi la met ak wërsëg ak cat bon dafa bare lu ne dafa bare mun ma wax benn affaire saabu mun na ko def mais danga xam nit soo bëgg jaay benn affaire nga bàyyi ko nit dina ko utiliser ñoom ci boppam dina wax ah gis naa lii ak lii parce que du saabu kese saabu ak benn téere ak benn cuuraay essayer comprendre waaw soo soo ko def soo ko jëndee ba pare nga jële téere bi nga def ko benn jaaro nga def ko ci sa ko essayer comprendre waaw saa boobu la bi tam noonu tam noonu la bi saabu bi par exemple soo amay ndoxo siti waaw soo amay ndoxo siti et puis encore soo amay bopp bu met oubien si sa yaram mi met ay nit ku oubien nit ku màgget mm-hmm. da nga xam ne dafa may nit dafa màgget mm-hmm. léegi su ñoom dafa ko jël pour sango seen yaram ginnaaw yàlla yàlla dina la fekk. nee na pour suñu maam yi nga xamante ni wala suñu papa yi nga xamante ni seen yaram jëm na mag màgget nañ mën nañoo ñëw utiliser sama bii parce que dina leen jàppale si lu bëri dina leen jàppale ci seen wërgu yaram dina leen jàppale tamit ci seen yàq bii nii bi mu yor nii c'est pour yi nga xamante ni yow yaay jeune képp koo mën a nekk bu fekkee cat dalaa sonal ba buy metti nga bëgg avancer ci sa life ñëwal nga xool ci saabu bi parce que am na ay mbir yoo xamante ni mu ngi ci biir te yéen yéen a ko waral. même soo ne waaw soo xam sa affaire du fonctionner. waaw kay jënd c'est important. c'est important. kay jëndi nga xool mm-hmm. soo ko jëndee mm-hmm. ah après sa jabar dina la wax lu leer. Mm-hmm. yow mi nga xamante ni yaa am problème yaa yaa yaa yaa impuissance comme je l'ai dit ñu rafetal moo bi ah sa jabar doo du kontaan ci yow ñëwal ci këram. sëñ sax nekk cité Aline Sow sama waa ji kenn du moom ci mim réew nga jëw mu jox la saabu bii barki sëriñ Touba sa jabar dina kontaan ki sëriñ Babacar si ay kon ñëw leen seesi ko ak ban incha allah rabbi ba dama may garab lu bare am nay garab ndoko siti am nay garab hémorroïde am nay garab faiblesse homme bon am nay garab tamp ay caat en comprendre comme ni ma wax rek dina wax waa dëkk yi waa sénégalais yi ay maliens ay nigériens ay gabone yi kenn ku ne soo ma soxla rek nga ñëw fekk ma ma ngi cité Alim Sow Guédiawaye donc eh, sama numéro 70 78 78 630 630 47 47 00 00 boobu numéro sama mag la wow. ba léegi mi ngi ak man sama deuxième numéro tam 77. 77. 120. 120. 23. 23 20. 20 soo ma woo rek mm-hmm. nga jot ma. Mm-hmm. incha allah rabbi. incha allah waaw soo ko woowee rek di nga ko jot ci numéro yooyu noonu parce que kii njariñu askan wi la ñun ñii lañ soxla waaw parce que man comme je le dis ah man du ma wax loo xam ne nekkul ci man te du ma wax loo xam ne gëmuma ko moom moo ma wan ma gis. waaw nit ki moom li mu li mu li mu gis rek loolu lay seede moo ma wan ma gis kon képp koo xamante ni jeune nga nekk ci ay difficulté ngay xëy muy dëgër ñëwal seet si ko. boo ko seet siwee yàlla suñu borom mën naa dogal yow li nga xamante ni moo la doon sonal yëpp dina dañ parce que instant bi ñu ñëpp dañuy soxla loolu noonu Sénégal booy xool ñëpp dañu sonn billaay walaay am jafe xam nga jeunes yi ñëw leen ngeen xool si ko mu ngi si cité Aline Sow waay boo fi ñëwee rek foo ne sëñ may sa incha allah dinañ dinañ dinañ dinañ la fi indi waaw kon ñëw leen ngeen seetsi ko parce que c'est très important. donc dinaa jox benn sarak pour waa dëkk yëpp. waaw ku ne soo nekk sa kër bu bees bi. année nga def tout possible nga wut benn saak dugub. saaku dugub. si yaa ngi soo wutu saak dugub nga wutu goro bu weex cent goro bu xonq cent sept mètres popeline foo nekk nga ñaan sa soxla nga jox ko benn nit kenn ku ne soo def kenn ku ne soo ko def incha allah rabbi yàlla dina la dimbali ci année bu bees. popeline bu weex taal. bu weex taal. et encore kenn ku ne. jigéen ku ne góor ku ne nga moytu sa téléphone. waaw c'est que année bi. Mhm. téléphone dina yàq alal bu bare. téléphone dina tas bu bare. téléphone bi dina yàq liggéey lu bare kenn ku ne nga moytu sa téléphone. troisièmement moon lan maa ngi wax waa sénégalais waa africain jigéen ku nga moytu sa bopp jigéen année bi année jigéen moo ko moom jigéen ku ne su amoo doom bul tas sa yaakaar année bi kay yàlla dina may nitu yu bare doom est-ce que yaa ngi comprendre et puis encore jigéen ku soo bëgg foo nga bàyyi foo su ne dina am doom ne hmm. man ma wax nga bindi teg ko est-ce que yaa ngi ma wax rek moo nekk nii léegi man ci sarax yi laa bëgg ñëw pour mu leer nee na année bii ñu jëm képp koo xam ne mën nga am saaku dugub sans doomu gura hmm? sans gura bu weex tamit mètre percale ñaata. 7 mètres percale ak euh, popeline ñaata. popeline 7 mètres. gura bu weex 100. gura bu weex 100. gura bu xonk 100. benn saaku dugub. benn saaku dugub. incha allah. nga ñaan sa soxla nga jox ko benn nit pour année bi. yaa ngi ci beneen dëkk yónni xaalis sa mbokk yi ñoom dina génne pour yow ku ko def année bi coow ku ne suñ ñëw yow doo nekk ci biir. ah kon c'est important kon na ko ñëpp def yéen ñi nga xamante ni yéenay moodu moodu ngeen nekk bitim réew ma ngeen avancé envoyé fii seen i mbokk seen xaalis comme ça ñoom ñu génneel la ko fii parce que année bii képp koo xam ne def na ko ci dina si gis njëriñ waaye képp koo xam ne def ko ci tamit a ah, lu la fekk rek xamal ne moom wax na. le king. taw bi jeexul de. taw dafa des benn su desu benn mun na des ñaar essayant comprendre kenn ku ne nga moytu sa bopp ci taw bi ndox bi du bare me dina yàq essayant comprendre dox bi du bare mais dina yàq affaire bu lu bare donc comme ni ma gis moo nekk nii ma ngi nuy waa sénégalais yëpp baali ñoom ñëpp kenn ku ne nga bal sama mag bu ku baax ki ki ay darambu nga bal sama papa tam Serigne Mboup ba léegi maa ngi ñaan ñoom ñëpp yàlla jog gudd fan ñun yëpp ci àdduna bi waaw merci. kontaan nañ ci moom bu baax a baax comme je l'ai dit que li ma woon di ñaanal magam jooju noonu di soxna Kya yàlla yërëm ko taxaare ko àjjana parce que moom tamit fi la nekkoon ci ñun nekk nit ku dëggu ku ku humble ku baax kon yàlla ko yàlla yërëm xam nga yàlla na ko yàlla yërëm bu baax a baax a baax man je l'estime je l'adore nee naa leen képp koo xam ne yaa ngi may seet. boo ma fekkul suñ kër ñëwal Cité Aline Sow géejawaay maa ngi fi man DJ bi kii am yaakaar l'homme qui n'a pas peur d'avoir des cœurs numéro yi joxe nañ ko après di ngeen ko gis ci suuf écran boobu noonu ak affiché képp koo xam ne soxla nga ko mën nga ko woo parce que ay njëriñ rek la fa wax te tamit li may jeexalee mooy que ni c'est maintenant ou jamais c'est maintenant ñun jeunes yi ñu def face à l'avenir c'est maintenant ou ñun ñu xam ñu ñooy ñan parce que réew muy dox ci ay jeunes am lañ koy xamee réew tamit buy bon. ay jeune moo tax ko ñu ngi leen di ñaan képp koo xamante ni yaa ngi ci mim réew am jeune nekk jeune choix mature lépp loo xamante ni nii leer na la yow lii boo ko defee dara mën na cee fekk bul ko def tegul ci yoon bu baax bi te xam ne jàmm ñun la ñuy ñaan te jàmm jooju si la lépp xaj nañu woote jàmm ci miim réew ñi nga xam ne ñoo nekk au pouvoir nañu toog ñu dajaloo woo jàmm na kilifa réew yu jug kilifa aada yi nañ jug ñu waxtaan ak waa réew mi ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk au pouvoir parce que man comme je le dis jaamu si la lépp xaj ñu ngi ñaan ñaa jaamu ci mim réew ñi lañ koy defee saa su ne chaque jour actualité chaque jour dañuy dugg ci gars yi waxtaan ak ñoom avec DJ Big ah te am na lu ñu ma wax nag mais lépp ay surprise la kon dama naan ba après ba après ba après incha allah ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw